loolu rek vraiment ok. ba tey ñoo ngi fi nga xamante ni moom mooy fii si na benn dal rek bu daal di daanu fii nga xamante ni moom mooy si ñaari euh, nit yoo xamante ni ñoo ngi woon si biir ñaari meer ñu daal si ñàkk seen bakkan mu mel ni rek mu neen mu doon affaire bu doy waar lool lool ba tey si yi nga xamante ni jot nañ si am kër gi nga xamante ni moom moo euh, nekk màbb si kaw euh, ñaari ñu daal di ñàkk seen bakkan mu mel ni rek ngeen gis ni ba tey ñoo ngi si li nga xamante ni moom mooy fii si. Euh, si si si si kanamu kër yi ngeen gis ñuy wàccee briques yi d'après information bi nga xamante ni jot nañ ko fee am mu mel ni rek ñi nga xamante ni benn maire bi nga xamante ni moom moo daal di ñàkk bakkanam moom rek moo moom sax moo daal di euh, sàkk woon pour ñu indi li nga xamante ni moom mooy briques yi daal di wàccee fii nii bi mu euh, waxee ak borom camion bi bay waaj indi briques yi si la daal duggaat si biir si la si bi daal di am d'après information yi ñu daal di euh, jot a gis ngeen ne briques yi ngeen gis ñu daal di wàccee nii euh, dañ ko indi woon fii rek pour defaraat li nga xamante ni moom mooy kër gi laataa briques yi sax di daal di daal di ñëw si la ndog-ndog bi daal di euh, am mu doon loo xamante ni lu doy waar loolu la ngeen gis depuis boobu ba tey li nga xamante ni moom mooy sapeur daal di nay ñëw ngir évacuer daal di jël ñi nga xamante ni ñoom ñoo nekkoon si biir mu doon ñaari décès yu métti lool. Euh, gis ngeen ba kër gi mu doon kër goo xamante ni euh, moom ngeen daal di jàkkaar lool nii euh, gis nga sax bu autontran bi ñëwee daal dinay daaneel benn partie ba tey maçon yi ñoo ngi fiiwaat di daaneelaat yi beneen partie bi mu mel nii benn maire ak maamam maanaam benn maire ak benn yaay yaay yaayu maire bi moom moo daal di ñàkk bakkanam fi fi mu doon deux personnes yoo xamante ni ay femmes la ñu daal di ñàkk seen bakkan benn maire bi nag moom tamit moom moom moo doon euh, def li nga xamante ni moom moo indi woon sàqoo indi woon briques yi pour daal di defaraat kër gi bi mu waxee ak ñoom ba tey si la daal di duggaat si biir rek euh, ndog-ndog bi daal di euh, daal di dal si kawam mu doon loo xamante ni lu metti lool lool lool lool lool lool la gis ngeen ba tey préfet moo ngi fii kii nga xamante mooy maire parcelle bi aussi tamit moo ngi fii daal di nañu évacuer li nga xamante ni moom mooy ñaari ñaari corps yi nga xamante ni jotoon na fee nekk daal di na leen sappo daal di na leen yóbbu. mu doon euh, lu euh, metti lool lool lool lool xew fi nga xamante ni moom mooy euh, Cambérène 1